ba gis ngeen ko mi ngi noonu téere yaa ngi nii téere bii firi gént xaaj bu njëkk baa ngi nii ngeen janoon kon bi ci desaat mooy téere bi yëngu ci wàllu lépp luy tegtale ci mbirum seet say mbir téere baa ngi nii traduire nañ ko it ci li nga xam ne mooy kàllaamay tubaab nga xam ne ñi jàngul arab sax buñ ko amee war nañ koo mën a utal seen bopp xool ko mi ngi nii loolu yëpp sëñ ji di jéem maam jublu ci ak jàppandal sëñ jili nag damay ñëw ci seet bi nga xam ne bindal nga ñu ci téere dafa am solo léegi ñu jàngoon ci alxuraan wa tabaxu maa tatlu shayaatinu ala mulki suleymaan waaye la ma ci yitteel mooy maa yu farriqu bi baynal mar'i wa zawji ñu gis tas gi bari na jigéen ñi bëgg ku leen jàppal seen boroom kër bari nañ góor ñi seen soxna di fay bari nañ maam yëngu-yëngu yi am ci diggante góor ak jigéen ak góor gu bëgguñu jàppal ko jigéenam ba mu yem ci moom seen jili sëy yi bañ a àggati tribunal alhamdulilah sëñ bay Jaxate day wax àdduna day werandiku jàmm day werandiku ku toog ci liy werandiku loo bañ bañ werandiku. sëñ ji loolu mooy. maanaam àdduna day werandiku. waaw. jàmm day werandiku. ku toog ci liy werandiku loo bañ bañ werandiku. faaw nga werandiku. maanaam euh, jafe-jafe. Mhm. ak coono ak njàqare. Mhm. ak ñàkk. ak tawat ak aajo yooyu suñu borom daa dogal faaw doomu aadama yi di ko jànkonteel léegi nag li ko nit ñi di jànkonteel dafa wuute ndax problème àddina yi dañ dafa bari dafa bari am na ñoo xam ne seen problème wér yaram la am na ñoo xam ne seen problème seen diggante seen soxna la am na ñoo xam ne seen seen jafe-jafe yi ñu am ci seen liggéeyukaay la am na ci ñoo xam ne jafe-jafe yi am dañ leen a liggéey am na ñoo xam ne cata leen di yàqal mm-hmm. ala kulli haal am na ci loo xam ne natt la bu suñ borom di la teg mm-hmm. am ci loo xam ne nit ay soxor di la ko def mm-hmm. am na ndax euh, bakkan doomu aadama bakkan boo xam ne tàggatuñ ko ci diine ak ci lu baax inna nafsa la amaaratun bi suu lool la alxuraan wax bakkan moom faaw mu occupé dara faaw ndax moom day xidmaal jëmm ji dana fexe mu lekk dana fexe mu naan dana fexe mu tëdd dana fexe mu sëy mhm. léegi nag loolu su fekkee tàggatuñ ko ci jub loolu nu mu ko mën a amee baax na moo xam day riñ nit ki def ko day sàcc nit ki def ko day war nit ki def ko looloo tax bari ci àdduna bi ginnaaw ak defaru googu amu ci moo tax jafe-jafe yi day gën a bari waaye du wàññiku moom mhm. bu dee xolub doomu aadama tamit yonent bi dafa waxoon ne am na lu ne ci biir yaram loo xam ne su jagee rek lépp jag muy xol ba tey koo xam ne xolam suñ borom defaru ko te xol mënta nekk niil mënta nekk vierge faaw mu occupé dara ci bëgg-bëgg mm-hmm. moo xam day soxor ci xol lay nekk ki ñaan ci xol lay nekk mm-hmm. Mm-hmm. yëpp ci xol lay nekk suñ ko defaree nag day wëlbatiku maanaam bëgg suñ borom ne ci bëgg def lu baax ne ci nga kooku su boobaa kooku du lor kenn waaye nag ba suñ borom moo ñaale ñu ak loo xam ne muy jinne ak seytaane ak rab mm-hmm. xam ne tamit bokk na ci li indi jafe-jafe nit ñi bu ko defee nag eh, nit ñi dañoo wuute nag ci ñu ñuy faje seen problème ndax am na ci ñoo xam ne ñoom seen problème bu dee seen diggante soxna dóor rek lañ ci xam ba muy bëgg dee am na ñoo xam ne seen problème yóbbu ko tribunal ngay yéeg a ko am na ci ñoo xam ne bu dee jigéen ñoo xam ne dañoo dem ba am jafe-jafe ci seen wàllu sëy lépp lu ñuy xalaat rek mooy xaru yaakaar na bu ñu ko defee noppalu ko fekk boobu loolu lépp alxuraan indil nañu solution boo xam ne mu sedd la problème boo mën a am boo ko jëfandikoo rek day day di nekk ndox mu sedd nga naan ko. nekkal ci sa jàmm. loolu mooy lan mooy addu'a ñaan ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne addu'a ñaan mooy ngànnaayal jullit loolu nag suñ koy wax dafa am saxaabu wax abi xuzaama dafa masalaat yonent bi sallallahu alayhi wa waaw yonent bi euh, léegi gisoo ara'ayta ruqan nastarqiha mooy mocc yi ñuy mocc ah, mhm. ngir ku tawat wa dawaa an nata daawa ak saafar yi saafar yi ñuy jël ngir faje ko jàngaro wa tuqaatan nattaqiha ak fegu yu ñuy def moo xam téere la bu ñuy takk wala lu ñuy sangoo ngir mucc ci mhm. kooku daa laaj yonent bi ndax ndax ndax ndax yooyu ah, mën na dara ci dogal suñ boroom mhm. yonent bi na ko yooyu ñuy jëfandikoo dafa bokk ci ndogal suñu borom ah hiya min qadarillah yooyu dafa bokk ci ndogal suñu borom mm-hmm. kon nag yooyu ci lañ fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi mag ñi dañ daan def buñ masaan am kër dañ koy téye téye baatin boo xam ne du ma ne coow dafa jóg waaye ñu ñëw àtt leen dana néew loolu nag lu koy indi ñaan la ndax soxna buñ la koy dénk bañ ak làmmiñ sax léegi-léegi da nga rëcc maanaam màtt sa làmmiñ wala mhm. màtt sa baaraam mhm. léegi nag li tax loolu du jëm kaw mbirum baatin la mhm. ndax sëy yi léegi dañoo wàcc yoon wi wàcc gu tara tara tara tara waaw dañoo xaw a topp tubaab yi topp goo xam ne bàyyi nañ suñu aada bàyyi nañ suñ diine bàyyi nañ lan daan def ci diggante jëkkër ak jabar ba nga xam ne jàmb rek a ciy am waaw nga xam ne bu ñu daan masa àtte it àtte bi du nekk àtte bu métti jàmm rek moo cay masa am loolu nag ginnaaw bu ñu ko bàyyee moo waral tas yu bari mm-hmm. dem tribunal yu bari yooyu yëpp bari mm-hmm. ndax bu njëkkaan da ngay gis genn kër fukki jigéen ak juróom ñëw ci dëkk jàmm rek la ñu am dafa mel ne da gis koo xam ne day jël moom képp moom ak soxnaam ci benn appartement te duñ mën a am jàmm mm-hmm. loolu dafa am la ko waral na am na ci secret yoo xam ne soo ko defee yaag sa borom kër wala yaag sa soxna li des ci seenug dund moom du ngeen ta du ngeen ko li des ci seenug dund moom du ngeen tàqalu dee rek moo leen di tàqale te sirru yooyu ba léegi mi ngi fi hmm. am na ci loo xam ne boo ko defee yàgg sa soxna bu dee da ngeen di xuloo dootu leen xulooti bu fekkee da ngeen ne bañante dootu leen bañante ndax hmm. léeg-léeg day am ci loo xam ne ci ku góor ki lay doon am ci loo xam ne léeg-léeg ci ku jigéen ki lay doon am ci loo xam ne léeg-léeg du nekk tayeef hmm. maanaam ay àndandoo koy waral Mm-hmm. waaw yooyu yëpp nag dafa mat di saytu. dëgg la ndax njaboot moom jàmm rek a ci gën. Mm-hmm. Mm-hmm. sëñ Jili kon tey jii diggante réeróo bu amee ci diggante way ñaari way dencante wala koo xam ni da mun na ci ab seetkat mu seetal ko li si xaaral ko fekk na tegtal yam ko joxoon def na ko waaye gis ba wérut woon mu dugg ci am ci ay jafe-jafe ndax bu ñëwee mën nañ koo dimbali defal ko lu koy dabuwaatal euh, la nga xam ni. waaw ñaan moom lépp la man ñaan moom. te lépp la man ndax seet diggante diggante bala nga caa dugg du diggante ab say rek lépp looy dugg da nga ko war a seet seetantal ko bu baax a baax ba xam lan nga cey fekk ak sarax yoo xam ne moom nga ca war a def mm-hmm. waaye nag boo ca duggee ba noppi mu am ay jafe-jafe mm-hmm. yooyu yëpp mënees na ko jooyanti jooyanti boo xam ne mm-hmm. jàmm day am wala boog bu jàmm amut it maanaam jàppante bi dana sore lool waaw te yooyu yëpp bagage yi mi ngi fi am na yu gën a tar yooyu sax Uh-huh. am na yu gën a tar yooyu fi mu ne am na ci kuñ ma mas a booleel koo xam ne mbir mu doy waar la uh, yàlla dafa def soxnaam këram gi mu nekk pàkk bi soxna si mook ko moomoon mm-hmm. waaye moom nag moo ko tabax ba mu nekk kër mm-hmm. moo ko tabax ko tabaxee ba noppi ñu am fuñ kuñ luyee nag kooku ñu luyee soxna si dema dema dem ba di ànd ak moom waa ji mënu ci dara ndax boo waxee jabar jee moom kër gi ndax turu kër gi ci moo moom pàkk bi jabar jee moom pàkk bi moom tabax rek la ci def jabar ji génne ko kër gi da ngay xool loolu mbir mu doy waar nga xam bu fekkoon ne àndutoon ak mën na faa def jéyi boo xam ne dootu génn kaso mm-hmm. aray waaji wala ñu xeex xeex boo xam ne moom lam daan faju moom day far li des ci ak yàqu bi mu ñu boolee wax ma ko ma ne ko noonu la ne ma ne ko waaw waaye waa bi muy génn kër gi dafa daw ñu euh, génn kër gi dafa daw. mooy kaso la doon jabari jàmbur kaso la doon ah. kaso dañ ko tumal yàmba. dama ne ko waxuma la waxuma la nekk nekk teg sa jabar waaye kër gi ci boppam fii dootu fi jaar. Euh. bu ñuy génn kër gi yàmbaa lañ ko tumaal mu daw bagaasam yi fa la fa bàyyi. sëñ Jëli maa nga xam yu mel noonu dafa bari ci société bi bari boo xam ne. Uh-huh. mooy waral nit ñi di dem tribunal di xeex di raayante bi di am. Uh-huh. xëppante yooyu yëpp di am fekk boobu. mën ko koo faj ci suuf te te yooyu yëpp mën na ci ñàkk sëñ ji li foofu sax daf may yóbbu mm-hmm. ma sataxal ab laaj muy mm-hmm. tey mbokk yi nga xam ne ñu ngi ci diaspora bi mm-hmm. di dund lu gën a pur lii nga wax jàppale sa soxna jële ko fii yóbbu ko mu jàmbu la dem nekk ak ay mbokkam trahir la nekk ak keneen wala it yow jigéen nekk fa daan dooleem ba am gis góor yónnee ko mu fekk ji ko mu wor ko te ñi ci dundukaay yu mel noonu sëñ ji li bari na ñooñ xanaa war nga leen mën a dimbali ñoom it wax jigéen du raw day maanaam du të day raw ah loolu wax wolof ju wóor a wóor la. Mm-hmm. waaw mais nu muy jàpp nu muy def jigéen moom boo ko bàyyee moom kese. Mm-hmm. bis dana ñëw nga am ci nga am ci loola ak i tamit góor tamit am na ci góor ñoo xam ne boo leen bàyyi noonu kese. Mm-hmm. bis dana ñëw nga am lu ci naq loola ci naqari ndax doomu aadama ci boppam moo màngi. li ko mën a fëkk bari. dëgg la waaw li ko mën a fëkk nit lu ko mën a fëkk. alal dana ko fëkk dara ji dana ko fëkk ay àndandoo dana ko fëkk. waaw ndax nit mën naa dëgg la mën naa nekk fii su amee yenn poste yi daal di changé carrément muy góor nag ak muy jigéen loolu day am mhm. bu ko mi nga xam ne da nga am sa soxna bëgg ko bëgg mu bëgg mu bëgg la ngeen bëgg a yàgg nga wóolu ko wóolu da nga koy fi barab war ngaa def sa yëfi yoo xam ne du ko mën a yàq mhm. mooy ñàkk mhm. ñàkk sa bopp ak ñàkk sa njaboot dëgg la mag ñi dañuy wax euh, soxna da nga koy téye soo ko téyewul bis dana ñëw nga ñàkk ko alal da koy téye boo ko téyewul bis dana ñëw nga ñàkk ko naan wax fas da koy téye boo ko téyewul bis dana ñëw nga ñàkk ko téye gi na loolu yëfi baatin la dëgg la loolu yëfi baatin la waaye boo bàyyi noonu kese mhm. wax dëgg bari na nag tey rek am na ko mu ci woo di ma jàmbat lu mel noonu nga xam ne dana man diñ ma jox ci ay téere ak ci gàllaaj ak ci ay kii mën naa ko photo mën naa koo foto yëpp dañu sonn ma ne ko yëpp amul njëriñ ndax yitte ci boppam nag moo mel noonu moom boo ko amee mhm. Euh, suñ mag bi daana wax ne maanaam maa ngi leen xamal li ma yor bala ma li ma suñ borom defal laata ma ko defal dama dama daj coono ju rëy waaw ñu wax ne njariñ moom ma ci ginnaaw coono yooyu sax jër nga koy jàmbat jaar naa fi jaar naa fi yàlla moo bind noonu aajo yàlla moo bind noonu aajo waaye yooyu moom wax dëgg yàlla tegtal yooyu am na fi yoo xam ne bari na ñu ma ci jëflanteel yoo xam ne ñu ngi ci am mbégte dëgg la kon mbokk yi dégg ngeen ko yéen ñu nekk ci biir réew mi rawatina nekk ci diaspora bi di góor mbaa ngay jigéen jàppale nit ba mu taxaw mu wor la wor boo xam ni amaana yaa ngi ciy dundaat lu metti tey dem nga ci sëriñ bu nekk mu tëw faju jokkoo nga cee ku nekk ñàkk ci lu nekk mbir day tegu ci li nga xam ne mooy ragal yàlla ak xam ko xam yoon wa ngay aw ndax loo bari bari xam-xam te laluwul ci ragal yàlla comme pënd rek lay mel doo ci def doo ci dindi lu dul di ci lor ay nit mbaa ndoo sa am sa njariñal bopp jokkoo leen ak Serigne Djily numéro mi ngi noonu affiché ci barre écran bi yéen ñi ñuy seetaan su ko defee ngeen mën a wax ko seen aajo lay seen yitte te ngeen. mbokk yi chaîne bi ngeen doon xaar yegsi na Serigne Djily TV di chaîne bi leen Serigne Djily Abdou Khadr Ba amal fas yéene ànd ak yéen ci ay programme yu am solo aju ci wàllu jàngale lépp lu aju ci ilmul asraar te mooy sirru yeeg sekkare yi jàngale lépp lu jëm ci xam-xamu gisaane jàngale it lu aju ci wàllu seet wàllu firi gént dana ci am ak ay émission yu am solo ci jàngale lépp lu jëm ci mbirum gàncax yow mi bëgg xam sa diine wéyal di abonné ci seen bii nga xam ni mooy Serigne Djily TV ngir nga mën a am mbooleem xeetu xam-xam yu am solo rawatina njariñ yi Serigne Djily di baaxe askan wi te muy ay sirru yu am solo bokk na ci sirrul basmala turu yàlla yi nu ñuy jàngee adat nooy dagge xaatim noo koy solee yow mi bëgg a xam sa fardo ay ni sa jëm jëmm muy sa mbirum diine nga xam ne suñu borom yow rek la ko gàll ci sa kaw gaawal abone ci seen bii Serigne Djily jàngal la sa diine rawatina yow mi nga xam ni dem daara dala weesu amoo jotu jàngi aboneel ci seen bi di jot mbooleem vidéo yi sëriñ jiili li tàbbal ngir nga mën a xam sa diine nooy julle nooy jàppe nooy sete boo juumee ci julli lu ci sariya wax fii nga koy xamee ci sëriñ jiili tv mani xéewal gi ñu doon xaar mi ngi nii tawféex gi ñu doon xaar mi ngi nii nooflaay gi ñu doon xaar mi ngi nii waaye leer gi ñu doon xaar mu gindiñu mooy sëriñ jiili tv mi ñuy xamal suñu diine wéy leen di abonné ngir ngeen di jot mbooleem vidéo yi